jabaay na dem mu ñëwati ci kër gi na dem jabaay moo dee waa jabaay moo dee ni ma la leen nag naa la xamal su nekk tey boo fanaane damay fanaan barke yàlla wala ma nopp la ay waa doxante buñ fi te nga yow yaa yow yaa yow mu ni ba dem. yow li nga wax lépp si man la nekk yow la nekk. damay laaj lan la. yóbbu ko suñuy mag yóbbu suñuy gone. ay waay te soo ba léegi maa ngi jooy kenn gisul ma xanaa weeru ko boo wooree ba ngoon jot fomp sa gimiñ ba ma nga nga. bu ñu nee kafe nga ne nga ne kafe bu ne. waaj a wol wol wi weelu dina feeñ tey ñëpp a ko wax imam imam boobu moo ko wax. aw weer kon dina feeñ tey da ngay xaaroon feeñ dañu ko digg suñu weer. waaye waaye suñu jàmm ñu ngi dem di ko seetu jóg leen da ngeen xool yi. da ngeen a wala wol yéen da ngeen a ñàkk. man yow yow yow fii tëkkuma ma jàmm yow laa bëgg man yow man man dama laa bëgg ci sama biir laa bëgg man sama biir xor la koor gi ah, weer yi waa dégg naa feeñ na man dama bëgg weer koor man moom koor rek laa bëgg man waaw waaw waaw waaw weeru ko non a toogal toogal xanaa xamoo ni weer bi kay ni eh, sa soxna si Daba Ndiaye laa ko woowee ndax man moom xam nga taxuñoo kii yóbbu baax Daba Ndiaye su fekkente ne dafa gis ay régalam da nga war faa fanaan ah, sa diine mayu la nga nga nga jóge fa dugg ci beneen néeg dafa dafa dem wala nga fa fanaan mënta ne waaw bu fekkente ne nag da nga faa bëgg a fanaani te ñoom ñaar waxtaan si ba jubóo mën naa ne waaw buñ ci waxtaan ba jiboo soo fanaane ci beneen néeg ba bu yomal xeemee suñu borom dana la duma cit cit cit cit cit cit da ngay da ngay taxaw nii yow man maa la takk yow man maa la teg yow yaay Real Madrid yow attaquant nga. weeru koor mi ngi ñëw dañoo bëgg ñu woor si jàmm ni ngay laajee jaxat boo ko doon woo cent ans quatre dimanche doo ko xam. ba mais kii ñàkk si naa. Ah. man xaw ma kanam jaxat te bu ma ko laajee. donc kat bi fekk nañ bàyyi